jërë ngeen jëf Jomaay de la république ak association malfaiteur mu di ay mbir yooyu journal bi nee nañu ñoo ngi ko ci xaar moom président de la république mu lijjanti ko L'Observateur nañu rapport yu ak ñoom la waa Cour des comptes siiwal yee ci gën fës bokk na ci scandale yu am ca Dakar dem dikk ci jamono ji ko docteur Moussa Diop ji jiite bokk na ci ay rëq-rëq yu bari yu ñu gis ci Prodac bokk na it ci 148 millions yu ñu doon taxañ doon ko bokkal ki fi ne woon jamono PCA bu ASER enquête dina kay di ñu xamal ne rapport yi Cour des comptes siiwal fuye wuñu ca gestion bu ministre Mame Mbaye Niang mi ñuy wax ne audit yu ak 2021 ko yamale dool na di ñu xamal ne kii di maître Moussa Diop mi jiite woon Dakar dem dikk rapport yi Cour des comptes yi waxal na ko lu rëy bokk na mu daan jotte doon ko dawal ci xaalisu Dakar tijjee nañu rapport yi nee nañu moom maître Moussa Diop oto bi ñu ko épinglé mi ngi doon jar 83 millions rapport yi wax ne ay rëq-rëq ci anam yi ñu doon doxalee marché public yi ca Prodac Rewmi Quotidien bind rapport yi tukkee ci OFNAC ak ca Cour des comptes sulli na ay mbóot yu garaaw ca Dakar dem ci jamonoy maître Moussa Diop feeñal nañu it ay mbóot ca mairie bu ville bu Ndar ak ca Prodac sursoixi di ñu benn benn la jalgati yi Cour des comptes feeñal ca Dakar ko ca Prodac feeñal ko ca direction Eaux et Forêts bu Ndar mi ngi ñuy wax it njublan gi waa OFNAC gis maladie universelle doon jënd ak surfacturation gu rëy rëy ni kit bi waroon a jar 8000 francs CFA agence couverture maladie universelle da ko doon surfacturé ba mu yegg ci 40 000 francs CFA contrat bi doxoon ci diggante Akilee ak Senelec Source A ne nañu OFNAC gis na ci escroquerie tentative escroquerie ak détournement deniers publics Pape Malick Ndour mi ne woon jamono coordonnateur bu Prodac l'info ne nañu moom ne na mbégte la am ci publier gi nga xam ne Cour des comptes publier na ko seeni rapport journal bi duñu wax ne ci ñeent fukki recommandation ak juróom-benn yi waa Cour des comptes def amu ci fenn fu ñu ne nañu ubbi ab information judiciaire contre Pape Malick Ndour amul it fenn fu ñu ko tuumale ak détournement lu aju ci salaire bi ñu tudd ca rapport ba la ci am dëgg-dëgg décret bi fixe indemnité directeur général yi leeral na ko joxe it nañu lotisee suuf sa moo taxoon mu demoon fa démb yéen bi nañu fa la santaane ñu dakkal lépp teg lépp ci suuf càmbar ko ko ba mu leer ñu soog di continuer la si bind nañ jiit réew mi leeral na démb ca mbuurkat njombe yi fi régime bi fi yugee def ci wàllu suuf vox populi nañu ak pàccoo gu réy la fa gis nee na gis dafa ñetti hectares suuf yu ñu fa daggal benn nit gis fa fukki hectares suuf yu ñu fa daggal benn nit gis na fa moom président de la république lu ëpp deux yu ñu dagg jox ko benn nit point actu nañu moom président de la république ñaawlu na la mu gis démb ci site bii di Mbour 4 nekk ca kees nee na ay boromi doole yu jege woon régime bi fi jógee ñoo séddoo site ba ay président institution ay ancien ministre ay directeur général ay député ay PCA e ak ay kilifa diine ñoo ëpp ci ñi séddoo suuf sa kàdduy président Diomaye ci xët mu ne bu ñu bëggaatee nangu suuf si ci ñoom du ñu yomb loolee tax mën nañu arrêté lépp mu daje ak leer ak yërmande sunu borom mooy Gaston Mbengue moom mi ñu doon woowee le Don King de l'arène di Gaston Mbengue journal yu bari ñu xëyandul xëy nañu di ñu ko tàgg bokk ci ñoom Source A Sud Quotidien Enquête Le Quotidien Témoin journal Bës Bi Le Jour La Sénékay Vox Populi Tribune ak L'Observateur ñoom ñëpp àndandoo xëy di ñu tàggee promoteur bi mag bi faatu démb di Gaston Xaali Mbengue